ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di profité ci occasion bi d'ailleurs di ñaanal ñëpp ndax dañu jóge ci événement bu rëy muy tabaski di balu ñëpp ak di bal ñëpp ak di ñaan yàlla itam eh, vraiment ki ñu fi tax a daje tey jii muy suñu jarbaat bi di Cheikh Ahmed Tidiane Diouf eh, vraiment lii mu am tey jii mu gën a yokk jëm ci kanam eh, muy lu rëy loo xamante ne aussi commune bi nii rek la ci mënoon taxawee pour que ñu yaakaar ne xëy na liñ ci war a am na luñ ci jéem parce que euh, dadul loo xam ne lu ndaw la maa ngi koy wax léegi ak xale yi ne leen ñun euh, lenn rek moo ñu xaw a nekk suñu défaut mooy dañuy am lu rëy te lu rëy loolu duñ ko fësal ba ñëpp xam ne lii lu rëy la ndax tey euh, ku ci ne xam na ne performance yi nga xam ne moom lañ ko fi tuddal léegi ay performance la yoo xam ne du performance yu ndaw donc jaadu na pour ñu encourager ko mais jaadu na pour ñu sargal ko pas pour moom mais nag fi mu jóge aussi ñoo ñu bàyyee xel ne lii ñëpp dañu war a am yeneen ay Cheikh Tidiane Diouf yoo xamante ne mën nañu feeñ ci gox bi mën nañu feeñ fii ci tool yi mën a feeñ feneen mën a feeñ feneen voilà moo tax euh, vraiment am na nañu mbégte trop tey jii pour teew fii ci tool yi ci kanamu ay waajuram kanamu ay mbokkam bu ñu koy sargal sargale ko fi tout à fait tout à fait moom lañ koy souhaité te it ñu ngi ciy am yaakaar bu baax ndax nag duñu ko bàyyi wax naa ko sànq dinañ ko accompagner ci côté yëpp pour que vraiment mu mun a am yeneen performance yoo xamante ne euh, mooy mooy mooy gën a ëpp doole. sama gars yi waxuñu ma sax le montant mais je sais très bien que ne daal on la l'accompagner de façon ko vraiment euh, dina xam ne commune bi mu ngi ci ginnaawam. c'est important parce que wax naa ko sànq euh, dama laaj sama président commission éducation sportive ne ko bi ñu commencé def coupe du maire ak léegi mu ne ma trois ans la xam nga dina jaaxal ñu bari nekk fi pendant trois fois rek nga organiser coupe du maire parce que musuma accepter pour organiser ko parce que comme sport bi dafa nekkoon source de violence raison pour la laquelle man je ne voulais pas que aussi euh, violence boobu buy demee ba muy am muy doxe ci man mais bi ñu demee ba ñoom ñoo garantil ma assuré na ma ne mën nañu ko def sans violence ci laa commencé ñu di ko def te boobu ak léegi vraiment mu ngi am jàmm te loolu itam laa leen di woo ñoom ñëpp moo xam nawetaan yi la coupe du maire ak yëpp vraiment ñu bannir ce qu'on appelle ci terrain football yi mën a permettre ñi nga xam ne ñooy kilifa yi di mag ñi aussi ñuy ñëwaat ci terrain yi. parce que wax naa ko sànq dinañuy bëgg a ñëw mais imagineel tey ji ay mag joge seen kër ñëw di seetaan football ay vionage jog mag ñooñu mënuñu daw dañuy mujje obligé toog man je rappelle très bien ñun bi ñu nekkee xale bu ñu daan football fii maire yi dañuy indi banc yi seen banc yu ndaw yi moom la ñuy téye indaale ko ñëw toog terrain ba. ba match bi tas ñu ñibbi. mais tey gisatu gisatuñu benn maire buy dem terrain am na ñoo xam si dañuy tere seen doom ne leen bu leen dem te loolu aussi dafay delloo si sport bi ci ginnaaw te sport dafa war a nekk terrain d'union entre eh, les populations yi nga xamante ne ñoom ñoo ko séq ba lépp mën a terminer ci jàmm. man dama jàpp ne ASC bu fekkee ne wuyoo na turu bi dëgg war na mën a def ay investissement humain yoo xamante ne eh, dafay jariñ gox ba mu nekk exemple bi may wax mooy comme li ma wax sànq. gis naa ne parfois bu demee ba école di ubbi ay mois d' octobre parents d'élèves fi ngay gis ñuy cotiser ay cent franc cinquante franc pour ñu euh, déblayer l' bi te kooku école yi fi nekk yëpp amu ci benn école boo xam ne passé na un hectare benn ASC xeju ci war nañu mën a boole ci seen programme euh, école yooyu ñu ñëw vraiment euh, comment dirais-je là désherber ko défricher ko ba nga xam ne seen rakk yi nga xam ne ñoo fay ñëw et même temps ñoom ña fay ñëw sax fekk école bi nekk école bu propre loolu aussi man jàpp naa ne ci liggéeyu ASC yi la war a bokk yeneen yi aussi mooy ci biir dëkk yi set setal yi nga xam ne mooy am ci biir dëkk yi ku ci nekk gis na même président de la république ren ci feetu tabaski bi mu ngi gënaat ñaaxaat population yi pour que ñuy setal dëkk yi di setal gox yi su demee ba le chef suprême le chef suprême du président de la république toll na feetu tabaski muy rappelé waat boobu donc loolu war nañu ñaaxaat ñun ñëpp en tant que collectivité territoriale en tant que population pour que aussi li nga xam ne mooy setal dëkk yi ñu xool nan la ñuy def ba dëkk yi ñu di ko setal parce que jot na nag vraiment pour que dëkk yi ñu di leen setal ba vraiment zéro déchet war fi mu a nekk. bon franchement journée tey bi bon franchement am naa ci mbette am naa ci mbette lool lool lool lool franchement am naa ci mbette ba instant wax sa mun ma ko yàlla xam na ko parce que mu jéene ñëw ba fii di moom loolu moom. aw ma seen fay quoi franchement aw ma seen fay quoi franchement. mais parce que nga def lu rëy looloo tax nee nañu deux ans rek nga def douane mais daanaka euh, yow yaa feeñal sa bopp quoi. waaw waaw gis nga de mu ngi noonu xam nga athlétisme moom sport individuel la moom. parce que soo liggéey rek soo liggéey rek dangay feeñal sa bopp quoi mais man mun na wax ne bi mooy sama deuxième année mais sama première année sax mun naa wax ni man fonk moon entraînement yooyu fonk moon entraînement yi quoi parce que athlétisme moom nekkul woon sax sama bopp quoi football laa gënoon favoriser quoi bi ma commencé ba ay janvier yooyu ma arrêté entraînement yi man ah lii moom amul njariñ quoi amul njariñ noonu mais après au fur et à bu ñu demee championnat nationaux ma dem sans entraînement ma jël euh, troisième laa jëloon troisième laa jëloon ma xam ne na que ah lii nii moom su ma ko continuer moom incha allah naa ca am dara quoi waaw loolu moo gën a motiver quoi. ci diggante bon ci diggante bi xam naa médaille moom bëri na moom médaille moom mënu ma ko wax yëpp quoi franchement bëri na quoi. mais yan ci gën a marqué moom sama médaille bi ma gën a moom mooy médaille bi ma daaw lañ ko amee quoi ci relais 4x4 bi étude bi quoi foofu lañ ko amee woon quoi médaille boobu moo gën a marqué quoi. waaw est-ce que mën nañoo wax ne Douane moo la moo la feeñal moo la teg ci yoonu athlétisme. bon waaw waaw mun na wax ne Douane moo ma feeñal quoi franchement mun na wax ne moo la feeñal te à part Douane Pape Serigne Dieng sama course bi moo ma gën a feeñal quoi franchement. parce que waa Douane moom feeñal na ma carrément parce que dañ may jàppale bu baax a baax a baax a baax. di jàng di def compétition waaw di jàng di compét bon yombul yombul parce que métti na lool parce que parfois da ngay dem entraînement ñëw sax doo mën a dem entraînement doo ñu mën a def mais ñu ngi koy kii quoi ñu ngi koy gérer quoi mais métti na lool quoi métti na lool. mais xamoon naa ne moom su fekkee athlétisme kese moo nekkoon suñu kii moo nekkoon suñu objectif instant bi athlétisme gi amul jàng xam naa nañ ci réussir en 100 bi. mais jàng bi bon Jeux africains waaw waaw xam naa ñu si mais waaw waaw gëm nañu ne incha allah nañ ci am médaille incha allah quoi. waaw yàlla baax na Sénégal moom gëm naa ne moom incha allah moom naa ko battre moom gëm naa ko quoi franchement. parce que bëgën bii nii sax sama entraînement bon gëm naa ni naa ko kii quoi naa ko battre quoi incha allah gëm naa ko. bon loolu moom franchement daf may gën a motiver quoi franchement dina ma gën a motiver quoi parce que soxla lii ku may jàppale bu baax a baax a baax comme ko wax na ne dina ma jàppale moom loolu moom dina ma gën a dina ma a motiver quoi dina ma gën a motiver quoi. Serigne Diène directeur technique national de la fédération sénégalaise d'athlétisme. Cheikh Tidiane je connu à travers le concours d'entrée à l'INSEPS. et à travers les Bon, euh, j'ai su qu'il avait vraiment le potentiel, les potentiels qu'il faut pour être un bon athlète. C'est dans que j'ai à l'encourager et à l'orienter vers l'athlétisme et même. en deux de là, en deux ans, réaliser des exploits euh, parce que 46-31, je pense que c'est une performance qui, depuis plus de 15 ans, n'a pas été réalisée ici au Sénégal. Euh, donc s'il parvient en

wax na mais dafa am lu mu bëggoon wane li mu bëggoon wane mooy heureusement bi ñu ko xalaatee parce que ñun dañuy gëstu gëstu nañ ba xam ne effectivement Cheikh Tidiane Diouf mii ci ASC Touli la soxe ko ba dem ci yenoon loxo muy waa douane ñu ngi leen di nuyu au passage di nuyu DTN ñu ngi leen nuyu yàgg délégation bi nga àndal yépp bi ñuy gëstoo loolu ñu ne ah monsieur le maire ne dinaa teg benni acte ba pare tegaat beneen acte acte bu may jëkk a teg mooy li tubaab di wax stimulant boo gisee stimulant bu ñi nga xam ne ñi ñoo daan faral di seetaan film kobo yi mag ñi xam nañ li ma wax dinañu gis ki nga xam ne kii mooy yore fas wi da yaru éperon boo xam ne éperon bi day nekk ci tànku euh, joke bi su fas wi di daw lu fas wi gën a daw rek mu mu mu jam ko ko bu ko jamee rek fas wi day gën a gaaw moom la wax éperon boobu loolu la wax stimulant donc monsieur le maire lii mu bëgg a def nii jëmale ko ci Cheikh Tidiane Diouf jëmale ko ci ASC bi loolu loolu laa doon bëgg a moo tax ma paraphraser ko noonu ne stimulant la moo tax mu ne ma jëkk ci ASC bi mu bi mu soxee ko en door ci subvention yi monsieur le maire doon wax léegi ne wax na nañ gaaw jox ASC yi seen subvention ah ki nga xam ne kii moom moo yore ASC Tuli monsieur le maire jox na leen enveloppe cent mille francs ndax li ngeen def ndax ci yéen la Cheikh jaan Diouf soxee ko c'est pour que ngeen produir comme ni ko monsieur le maire waxee d'autres Cheikh Tidiane Diouf donc loolu xaalis bi amul solo mais acte bi mu am solo pour wane na yëg nañ li li ngeen dem beneen bi ci des ñu jëmale ko ci ki nga xam ne kii moo ñu fi tax a daje muy le lauréat Cheikh Tidiane Diouf mu bëgg ngeen tàccuwaat ko bu baax. monsieur le maire wax na ko sànq nee na boo demee ba sëgg ci piste bi nangu ñu xalaat mais lii ñu la jox signal la du dara signal la pour wan la ne lii ñu joxe dañ koo joxe pour. encouragé la pour war la ne ñu ñu ngi lay teg bët mooy monsieur le maire jox na la une enveloppe de cent cinquante mille francs en guise d'encouragement à partir de maintenant boole nañ ko pour une durée de deux ans pour accompagner ko ba yàlla may ñu yeneen échéance ndax ku def lu rëy nga am lu rëy yàlla nañu yàlla may yeneen ndam ndax ñuy defaat yeneen wasalaam